d'abord aller à la rencontre d'un

son parcours et sa saison. Regardez. maa ngi tudd Fallou Sène football euh, euh, Fiorentina maa ngi si équipe Fiorentina bi. son son punt la attaquant. Pointe bi ñuy door a commencé xawoon na tuuti parce que dañoo amoon yeneen compagne daal lañ ko wax yeneen joueurs yoo xamante ni yu bees lan yoo xamante ni xamante wuñ woon suñu biir laataa ñuy nekk group xawoon na métti tuuti mais après dañ commencé nekk groupe di gagné match yu bari après ci bi may joué ak centre ci laa commencé ci laa sax bi yu ma dugal. waaw nii laa fa ñëwee dama nekkoon euh, benn. Euh, benn dëkk bu tudd Cupertino province di Lecce foofu Lecce la léegi foofu noonu laa nekkoon après may football si genre benn gardien ak samay xarit après ci la ci benn benn tubaab ñëw foofu noonu di ma fa xool di ma fa gis léegi man xaw ma si yoon dara après benn jour la ma jël seen président ba jël ma yóbbu ma seen école football ba après foofu noonu laa commencé nekk at laa fa def mais ci biir at mi. def naa test Juve ak euh, Sassuolo Juve waaye Juve ñoom jëloon nañ ma sax mais âge bi ma amoon danoo bëggoon comme sama parents yi ñëw dëkk Juve léegi nag loolu man toona ne ma ne après ci la ma baari jële ma def baari deux ans ma defee Bari deux ans 2018 laa dem euh, laa dem Firenze jour bi ma convoqué loolu ça m'a fait plaisir ndax nga nekk ci équipe boo xamante ni yàgg nga fa def nga fa six ans après gars yi woo la loolu day nekk plaisir boo xamante ni c'est extraordinaire. Euh, sama forme mooy profondité mooy comme euh, ñu def un deux pas la bal nga si si nga daw si xaw naa daf ma xaw a gaaw quoi milioraare lu ma amee lu may milioraare mooy damay gën a la waraare technique rek gën koo étudier quoi parce que technique du doy. Italie woo nan ma ñaari yoon je pense que ni Sénégal ñoom yëg nañ ko sax parce que wax naa ko ci. wax naa ko ci ay interview wonan ma ñaari yoon affaire yooyu noonu ñoom daal ñi ngi def la tout pour ma football foofu noonu waaw sama bëgg-bëgg mooy ma joué sama réew fi ma juddoo fi ma fi sama mbokk yi nekk sama xarit yi damay xool Cristiano Ronaldo ak euh, Sadio Mané ñoom dama leen xool parce que bu dee Chris la genre moom dama ko dama ko yàgg dafa ne dafa yàgg nekk sama kii sama idole daal Sadio Mané moom it c'est la parce que day entraîner même bu laata hivernal moom day entraîner comme Chris te man dama bëgg saal quoi dama bëgg di dem palestra affaire yooyu noonu. mooy euh, donc euh, Fallou Sène nekk attaquant comme ni ma ko waxee fële ca Fiorentina def saison bu am solo mu nekk nag débat bu intéressant parce